لم يكن أتباك بلغا للدام القرآن في دام جلتي ولقد تقسيم بوحي رسي الله Allahu ya Allah. Ya Allah. ya Allah. Allah. Ya ya parce que nag ki nga xam ne moom moom nga war waxal ki nga xam ne nga laaj xalaat

juddoo fi jàng alxuraan suñu doom ñu leen jàng alxuraan képp koo xam ne sénégale nga boo jógee li nga njëkk a def sa doom bu matee jàng alxuraan nga koy dugal ba mu jàng kooku mënut a xeex lislaam au contraire dañu ko fexe islam am taarix bu rafet am taxawaay bu rafet xale ñu jàngale ñu war a jàngale parce que wax naa ko benn bës xale bu jaar daara ak xale bu jaaru daara différence la nampatal ko ci alxuraan yar ko mu gën a yomb xale boo xam jaarul foofu kon loolu nag bu ñu ko dugalee ci nga xam ne mooy jàppale réewam ko mu jëm kanam loolu ñu war a jël en charge la suñu préoccupation première la parce que xale yi réew mi ñoo doon ëllëgu réew mi te réew mi daal naa nu mu mel mooy li nga xam ne noonu suñu doom yi mel parce que ñoom ñoo yor ëllëgam si biir taxawaay mu ñu war a taxaw ci réewum Sénégal def ko muy benn ak ñaar expérience benn bu ci nekk am na sax ay ay luñ ci am waaye expérience yoo xam ne la du expérience yoo xam ne mënuñu ko naw parce que am na lu ñu ci mën a tiire nag ci ay bénéfice waaye tiire wuñ ci lu baree bare ci expérience yooyu nag su ma koy wax mooy li projet ñu amoon pour wàññi xale yi ci mbedd mi parce que vraiment bu ñu xoolee Sénégal nag ci défi yi ñu am loolu ci la gën a bokk pour wàññi xale yi nga xam ñoo ne ci mbedd mi di yalwaan ñu seet ko ba xam nax lañ koy defee waaye àndandoo ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk à la base ñu def ci nag gëstu waxtaan ci ak yenn partenaires yi waxtaan ak ñi nga xam ne ministres yi nekk sectoriels yi nekk en charge waaye ubbitee na waxtaan bi ci ñi nga xam ne ñoo ci ëpp solo moo ñi nga xam ne ñooy ñooy sëriñ daara yi pour ñu waxtaan ak ñun xool ñu ba xam naka ñu def pour protection xale ñu leen war a protéger du rek xale yi ne ci mbedd mi mais xale yi nekk daara yi tamit xale yoo xam dañu dañu nekk en situation difficile xale yoo xam te dañu di xaw a violenté ñoon te ñu fexe ba seen nekkee parce que xale tamit dañ koy aar dañ koy toppatoo dañ koy dimbale pour mu dem ëllëg fi ñu bëgg mu nekk sëñ bi wax na ko réew day dox day avancé mu ne fi nekkoon daaw ay maam nekkoon fa di doxale noonu loolu la ñu continué doxal ba léegi parce que loolu tax day tax da nga taxaw benn place te du avant te nag bu ànd na ci àddina muy dox da ngay dox ànd ak loolu moo tax ñu xam ne lépp lu ñu def ci lu baax dañ koy conserver waaye lépp loo xam ne dañoo def loo xam ne peut-être bonul naan waaye mën nañ def lu gën a baax loolu à l'ère de nouvelle technologie tey jii boo gisee sa doom tey mën nga toog sa kër yor sa ordinateur sa doom di jàng alxuraan am na tey kilifa yu bari yoo xam ne alxuraan demuñu kenn ñoo ko jàngal seen bopp dañu ubbi télévision ñu leen jàngal loolu yëpp ay avancé la loolu la bu avancé nag ñu tam dañu avancé ànd ak moom loolu rek mooy waxtaan bi loolu mooy solo bi parce que yaakaar nañ ne yéen ñi tey toog fii bàyyi seen itte bàyyi seen soxla li ñuy wax ñor ma leen parce que Sénégal moo leen ñor wax naa ko benn bés comme ni ko monsieur le président waxee Sénégal bu amee jàmm ju mu am buñ talee tey toog fii di réunion bu talee tey waxtaan ci jàmm

moy accompagner gouvernement du Sénégal ak état membre des Nations Unies pour nous jël en charge li ñuy wax traite des personnes Sénégal nak ben forme bu gëna a bi bi mooy yelwaanu xalé yi Xalé bo xam nañ koy xeylo mu nek ci mbedd bi suba ba té djublu way bi moy bu wàccee indi versement dañ ko considérer comme exploitation économique donc suñu taxawaay mooy gunge état bi techniquement indi expertise bi pour ñu comprendre enjeu mais également accompagner laan accompagner leen financièrement pour que ñu mën a bi ñu mëna a xeex bi nu mu gëna baxé tay bari na dama ci lim ñet bu njëkk bi moy compréhension bi sénégalais comprendre li nekkul xeex daara nekkul xeex l'islam sénégalais bari légui ñu ngi demander l'application de la loi comprendre nañu enjeu bi par rapport ak mandicité bi. bu si njëkk moy ñu ngi am de plus en plus l'application de la loi moy ñi nga xamné ñoy magistrat yi ñu ngi sanctionner képp ko xamné yaangi exploiter xalé di ko ci bu bi projet yo eh, ñu si medina, Colobane ak Pikine Nord gis nañ après deux ans bu am de plus de 50% de la dans ces communes là donc lolu ay résultat yu am solo la yo xamne ñu koy. sama décision justice koy nangu nu mu mais may rek condamnation en sursis ak condamnation ferme condamnation là. mais li nga xam nañ ko ci war a dolli mooy te sëriñ yi wax nañ ko jamono dafay dox am na loo xam ne mu ngi doon xew si suñu maam yi kenn mënatu ko nangu fu mu nekk nii bu nekkee am na ñoo xam ne ñu ko def ba léegi ñoom dañu a càmbar seen doxalin xool ne jamono bi dox na ban méthode la ñu war a ut comme alternative loolu di jëng xale yi wala di leen maltraité parce que loolu dëppootul ak doxalin jamono. sëriñ daara yoo xam ne dañu war a félicité bu baax ndax seen taxawaay dafa rafet ñu ngi jàngal alxuraan ni mu waree ni mu gënee mais à côté de ñoom dafa am ñoo xam ne dañuy mbubboo diina ji di mbubboo lislaam mais jubluwaay bi deug deug am koom-koom la ñooñ nak dañu wara xamé ségg segg leen ci biir groupe bi ndax bo leen seggul dañuy yàq liggéey ñeneen ñi. nationale la fédération nationale d'école coranique du Sénégal. waaw doléance sëriñ daara yi bari na waaye mën nañ ko tënk ci ne euh, secteur u enseignement coranique dafa nekk secteur bu am importance ci réew mi nga xam ngeen ne enseignement coranique moo fi jëkk enseignement français.

ndongo yi jàng ci daara yi ñoo ndongo yi nekk ci bi ñooy am parce que c'est des citoyens sénégalais te euh, impôts yi yi laaj ñëpp a koy joxe kon te état ci ndoddam la la la tegu moo war a jàngal xale bi lu bàyyi bëgg mu jàng otaa moo ko war a jël en charge ba mu am un certain âge ñu gis ne loolu nag amu ci daara yi lool lañ bëgg na mu dañ. xam nga li ñu kaas lépp ak li ñu wax yëpp pour mën a sotti il faut que ñu wote loi bi à l'Assemblée national bañ xam lan kan mooy yor daara lan mooy daara lan moo dul daara su boobaa léegi bu dee ay subvention ay appui yëpp foofu lañ mën a basé pour xam ko ko yeeyoo ak ko yeewul mais fi ñu toll day état bëggoon dimbali daara fan la koy teg kan la koy jox depuis un an et quelque la waa parrain sëriñ daara yëpp d' accord ci tarixa yëpp d' accord ci association bi yëpp d' accord ci mais fan la tege ba léegi ñu jaaxal nañ sax ko ñu ay réclamation nañ ñu wote ko bañ xam lan mooy ci Sénégal Euh, jàngooro bu fekkee ne dafa yàgg xam nga réew mi mag ñi bu njëkk dañ daan jéng xale yi kilifa yi diine yi gëpp dañu bari jéng nañ la ba ñu jàng parce que jamono ko laajoon bon jéng du question métti xale bi wala tumuraakeel ko wala bu ko soxore maanaam koo gis ñu jéng ko ci xale yi rek buñ ko jéngoon ci bu xale bu màggee ñu jéng ko ndax dana def ak tooxi doona police ñëw këram manote ko donc benn ñu jéng jéngale bi ngay xale wala ñu jéngale bi ngay mag rek donc sans mag ñi sens boobu dañ jëlewul affaire jéng waaye du woon affaire soxor ndax xam nga mënoo jur doom tëggub jéng ne sëriñ jéngal ma ko parce que da nga ko bañ xanaa ko kenn doo bañ doom ji nga jur mais xale bi da lay jaaxal doo xam nooy def donc benn façon la woon ci façon yar yi yar yi indi comme addina day dox évolution day am bon te réew day am ay ay normes ak loi ak texte day am ay ay ay ay ay ay accords internationaux yu muy signé da ngay xam nag jamono day comme ni ma léegi ci kii bi donc léegi yaakaar naa ne loolu moom duñ weesu luñ war di bàyyi la mais nag cas bu euh, secteur bi secteur enseignement coranique dafa yaatu.

seconde première terminale def ay série série S ak te bari na mais kenn du ko wax man man mooy point faible daal rek la ñuy wax. suñu yaay moom jaay na dundam yow كلا ننعام نفايم سوالين دتنانا الله يا الله الله يا الله يا سلام إلينا قدفا عليك يا رب قدفا عليك يا رب